ayca mu mel ne doyen yegg si na doyen bismillah ma joxati Chérif junni bi rek. <laughs> dana jàmm merci beaucoup. Chérif ayca ñu euh, xuus na ci euh, jàngat bi defe naa ne jàngat bi moom tey dañu koy euh, tënk ci tiis bi nga xamante ni si dal na suñu kaw ginnaaw fan yi yëpp. waaw fan yi yëpp daanaka bi at mi tàmbalee ba léegi Sénégal lim ñàkk ci ay doomam bari nag mooy ñi xam ak ñi xamul. démb nag am na ci ñaar ñoo xamante ni it wan nañu ginnaaw te seen taxawaay ci réew mi ñëpp. ñëpp rafetlu ko muy général Mamadou Niang nekkoon na fi ministre de l'intérieur amoon ay ndomba tànk yu ci armée bu Sénégal ci wàllu dialogue wàllu processus électoral it ku ci xarañ la nekkoon na ambassadeur du Sénégal sax ba mu jugee fi nga xamante ni kon moom mooy euh, ci ministère bu de l'intérieur fan yi moom moo jiite woon tamit commission politique bu dialogue national Abdoulaye muy euh, kilifa gu mag goo xamante ni gis nga seede yi benn lañ ci taxawaayam ak ni mu doon servir sa nation Chérif général Mamadou Niang xam nga chronique populaire bi li ñu jàpp mooy moo jiite commission cellulaire bu dialogue politique bu dialogue national bi mais ci fàttali da ngay jàpp ni ministre de l'intérieur la boo xam ne mission dafa difficile woon trop parce que général Mamadou mu ngi arrivé ministère de l'intérieur après le général Lamine Cissé bi nga xamante ni moo nekkoon ministre de l'intérieur ba alternance 2000 am ñu doon inauguré eeru président de la république di fal ay généraux au poste de ministre de l' intérieur parce que ministère de l' intérieur dañu yàgg jàpp ni ministère organiser élection la ba tax pour amoon personnalité bu neutre boo xam ne ku jéggi dina ko nangu ñëpp nangul ko mu jafe woon général Lamine Cissé bi ñu ko falee ñuy fàttali ni opposition bi dañ ko doon xaare xaare bi mooy signé luñu ko rek ne jàpp ni comme militaire la dana tëddee njaaxaanaay dañoo xeex a xeex ba ab ba Abdoulaye du mujj falu li tax ma ne mission général Niang dafa jafe moom moo arrivé après le général Lamine Cissé nga xam ne ñëpp jàpp nañ ni général Lamine Cissé wàccoo nag li nga xam ne nii moom lañu ko sasoon lay Wade di door a ñëw fal moom it général am au poste de ministre de l' ñu bëri jàpp ni président Wade bi mu ñëwee dafa wut général am moom tamit pour fal ko ministre pour mu defal ko li mu bëgg mais général Mamadou Niang a été un soldat jusqu'au bout te yàlla dafa def aussi moo nekkoon ministre de l' lu ñu marqué la ci ñu ko dund. Mhm. moo nekkoon ministre de l' intérieur ci suufu batalo Joola. Mhm. muy tiis woo xam ne gérer ko dafa difficile rawatina mu nekk soldat gestion bi très politique. Mhm. parce que aussi ci fàttali loolu la da ngay gis les premières heures sax. préoccupation euh, autorité mooy dalal xel donte yëf yi njombe lu rëy la mais xam nga kujjee politique rek ni mu demee bu musiba amee sax li njëkk a jël seen xel mooy noo dal leen garaawul dëggu fii mais moom ci discours am da nga doon sentir ni sax da doon xaw a xaacu sax par rapport ak discours politique bi nga xam ne nii moom lañ doon bëgg a gérer crise bu toll noonu jural na ko ay tolof tolof sax ci digganteem ak euh, ay ñoo xamante ne nii jiñ nañ leen sax nii à l'époque euh, euh, le ministère de l'Intérieur leur était promis ku mel ni ki Abdoulaye Balde nga xam ne moo nekkoon secrétaire général la présidence li commissaire de police cest dire nit ñi jàppoon nañu ni le ministre de l'intérieur lui est promis faux pas général ñaar la ñuy xaar rek pour def ko ministre de l'intérieur mais loolu yëpp général ñaar a tenu nekk nag républicain jusqu'au bout ba ni mu fi jógee njaaxaanaay la tëddee amul fenn foo xam ne ni xarab nañu ko fa ci wàllu féete par parloo faral président Wade wala xañ ñeneen ñi ci ñi nga xam ne nii tey noonu la ministère de l'intérieur di tëddee ci at yu mujj yi nga xam ne am na ministre de l'intérieur yu fi jaar yoo xam ne organi élection yu ñu organisé mm-hmm. yàlla xam doy na boo jëlee kaawu bu Abdoulaye Daouda Diallo def naa élection yi gën a catastrophe ci Sénégal yooyu la fi organiser mais ñeneen ñi sax mayuñu leen nangul njaaxaanaay moom nag matal na ko mais li tax mu difficile mooy il arrivé après le général Lamine Cissé et ça il fallait le faire parce que général Lamine Cissé quand même a été un grand ministre de l'intérieur organisé ay élection ci contexte bu difficile mu assuré ko ba ñëpp mujj d'accord ni xëy na doon nañ ko xarab mais mujj naa tëddee jaaxaanaay ci onel bi ñu fi tax taxawaloon ak yeneen ak yeneen donc moom moo gënoon a difficile mais il l'a assumé ba fonction yeneen yi mu assumé ambassadeur ak yeneen vraiment nit ku mag la ñu perte. te loolu moo tax ñu koy jëliwaat. indi ko ci mm-hmm. dialogue politique ñëpp d'accord ci mhm. c'est-à-dire am un préjugé favorable ci moom te loolu jaar-jaaram moo ko ko may ak lu mu fi liggéey mhm. parce que am na ñeneen ñoo xam ne am na yeneen i yoo xam ne général Dieng par exemple mhm. yàlla na yaa xam sedd moom tamit mais gis nga ko moom contestation dañ ko contesté ba ñu mujj ko fee jëlee ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu càggan sax ñoom indi woon nañu pété mais euh, ku jéggi nangu lu leen woon ni daal am na ñu nañu màqamay njaaxaanaay boobu. te loolu bi euh, général ña amoon du ñëpp la ko yàlla mayoon ci. moo ko liggéey rawatina ci wàllum politique. moo ko liggéey nañu ko ko reconnaître te loolu defe naa woy wi rafet na. Mhm. woy wu rafet la fi bàyyi ci li nga xam ne nii moo ko liggéeyal boppam musul nangu nekk un homme de compromission. compromis doon na ko lijjanti nag parce que dialogue politique bi sax gis nga ko li ñuy wax mooy am nañu ay compromis yu bëri. Mhm. moo ko liggéey am na. xiiroo ngaayam dox ci digganteem ak président commission dialogue national bi faamara mais dégguloo ko moom gënale a boppam sax xëy na xëccoo ay position ay poste wala ay maqama ak daraja heureusement d'ailleurs ñoom ñaar ñoo jiite loolu parce que bu doon yeneen nit la di nga dégg crise institutionnelle boo xamante ne xëy na dialogue ba fa lay jaaree yàqu mais ñoom ñaar seen dayoo may na leen nit ñi la ñu bàyyi ñuy wax mais ñoom déggoo leen benn yoon ñu yëkkati ci kàddu te loolu. loolu indi notion wu notion wu sutura bi ñu am ñoom ak la notion d'état ndax yenn saa yi nit nekk ci yenn position yi te pourtant euh, xam loo xam ne bu ko waxoon xëy na mu taalum réew mais ñoom faral lu ñu leen di dégg ñu yëkkati yenn kàddu yi. ñu koy ay nit ñu ay nit ñu sàmm seen kàddu la ñu woon te it te te te bu ñu ko doon yëkkati dañuy xam lañ cey wax. loolu moom euh, nañ ñaan yàlla bu ñu tumurankee genre nit yu mel noonu am na ñu ñu fi ñàkk nag ñoo xamante ni loolu lañ leen moolaalee moo tax baax na ñi nga xamante ni nii ñoo fi nekk. maanaam mhm. lu biir. waaw mais bind tamit baax na. Mhm. bind pas bind pour révéler secret mais bind pour mémoire. Mhm. mémoire du caagan li nga xamoon yëpp nga teg ko. ci lu ñaaw. waaw ci lu ñaaw sax à bind sax ci jàngal nit ñi. ci nan la ñu war a amee lu gën dafa baax mhm. ku mel ni ki ndem si yàlla Bruno Diatta mhm. mais bu ñu bindul ay mémoire am xëy na dina doon perte bu rëy ci réew mi pourtant war naa mën a jàngale li nga xamante ne nii mooy euh, mhm. secret d'état parce que amul lu mu xamalul chef d'état yi parce que lu bëri moo koy dox parce que boo amee ko wóolu kenn nit mooy ki nga xamante ni foo dem mu la topp wala foo yeewoo mu ngi sa buntu néeg fooy génne it moom ngay mujjee gis booy dugg sa kër. donc kooku fa mu doon nit jàngale bi bind bi li tax mu solo mooy dañuy war di jàngale loolu naka lañ ciy eggee parce que c'est pas à tout le bi rëy na trop gis nga réew mi li ko yàq mooy euh, lu ñuy tuddee bu ñu tuddee trafic d'influence. Mm-hmm. nit ñi dañuy bàkkoo sax maa xam diw. Mm-hmm. cest à nit ñi dañuy dóor ay marto sax ci maa xam président. wala damay gisee président mm-hmm. tous les jours. te loolu lu fi nekk la ñooñu nag gënalee nañ seen bopp maa xam diw maa wéetoog président déy na ma lii kenn mësu leen dégg ci loolu ci loo xam ne nii ñaaroo nañu ñett di ci jot te loolu ñu ngi koy bëgg a tumuranke tey. defe naa ne tamit oui euh, parce que yaa ngi naan le général <coughs> euh, Batoloy Diola moo nekkoon ministre de mais ku ne Idrissa Diallo aussi sa xel dem ci Batoloy Diola non seulement njabootam gëm fa ñàkk mais taxawaayam pour ñu rendre justice aux victimes et à leurs familles. Idrissa Diallo gis nga maire Dalifort la mais waa Marsassoum la c'est important. Mm. gis nga parcours bi waa Mars Marsassoum la juddoo. fa la fekk baax muy un gars du sud mais ñëw ba nekk maire Dalifort mais sa Diallo ci ñi sur parcours am bu weesoo parcours syndical bi nga xam ne am na ko en tant que cadre euh, ci entreprise yu mu jaar li ko boole politique Batalo Joola bokk na ci parce que événement Batalo Joola bi mu xewee mu ñàkk ci nag am ci tiis wu rëy ñàkk ci ay mbokkam yu ko jege njabootam mm-hmm. ñàkk ci njabootam jiite collectif bi nga xam ne nii mooy layool famille yi mooy taxawal famille loolu moo ko boolee ak fës bi ci kujje gi hmm. mu assume ko nag parce que gis nga ko association boobu amoon nay jamono xiiroo hmm. am na ci wala tasaaro léeg-léeg sax ñu joxoñ nit ne ay intérêt lay dox hmm. doxalul ñëpp te loolu fii foo dajalee mbooloo mu am moom nag wax dëgg fa yàlla wàccoo na ak li nga xam ne nii moom la doon doxal victime batalu Joola xëy na loolu boo ko indi ci kuje gi ci politique ba yàlla boole ko ak mairie Dakar ak Khalifa Sall ba ni muy wàccee ci Khalifa Sall la nekk ànd ceeg ngor loyauté pourtant nag Khalifa Sall perte na ay maire yu bari mm-hmm. yoo xam ne ñoom la àndaloon ñoom la gañandooloon moom bokk na ci ñi nga xam ne mën nañ ko bàkkee ni vraiment loyauté mm-hmm. fidélité ak ngor la ci ànd te nag am na loo xam ne Euh, luñ ko mun a nangul la bokk na ci ñi gën a défendre bi gouvernement am nekkee ci njàqare gu rëy ci période yee ñu génn ci période inondation yi moom sax bokk na ci ñu gouvernement bi di mettre entre euh, di di mm-hmm. brandir comme un trophée parce que bokk na ci maire mm-hmm. Mm-hmm. opposant bu taxaw ne wax dëgg fa yàlla moom programme décennal de lutte contre les inondations bi am na lu mu jagleel waa Dalifort. Dalifort waaw fi naan uh-huh. démb invité bi. Euh, am na lu baax mm-hmm. te loolu. Mm-hmm. grandeur moo koy may nit. Mm-hmm. parce que yomb na nag ci bu nekkee ci contexte boobu. ku nekk di sol. waaw di wax ni defuñ fi dara lu baax mais moom dafa taxaw ne wax dëgg fa yàlla. bu dul loolu li ñu fi def ci programme décennal de lutte contre les inondations Dalifort Cité Soleil na mu daan taaye. vraiment melatu ko te loolu grandeur moo koy may terewul mu nekk opposant di dox ci li muy dox. ànd ak Khalifa Sall muy neex ànd ak moom muy naqari moo tax c'est vrai Khalifa moo gën a am tiis. Mhm. te gis nga ko bind bi mu bind da ngay gis ni bindu xool na hmm. wax na li mu ñàkk xam na aussi euh, li nga xam ne moom la nag ak sa Diallo parce que Khalifa Sall yàgg nañ ko nëbb jant bi. loolu yëpp tax nañ ñu bëri. Mhm. dem nañu feneen mais moom ànd na ci ak ngor woy moom it rafet na te gis nga loolu moo jar a sàmm. Mhm. mujj bu rafet weesuwul nga jóge fi bu ñuy fàttali ne ah. am àndoon naa ngor. Mm-hmm. dañuy am taxaw bu ñuy def fan yi suñ benn mbokk bu fi wàññeeku woon imam bi def vraiment jàngale bu am solo. xam nga nit ñi dañuy faral yàkkamti léegi sax ci mm-hmm. rob yi ak yooyu mm-hmm. imam bi daal di ne dañoo jàngale ci diine ne bu ñuy taxaw néew bi vraiment na nit ñi jéem a am jot parce que ku nekkoon ci place yu néew bi da nga bëgg nit ñi taxaw am jot mu ne nag dañuy jàngale ci hadis boo xam ne ni wér na ñu ne bu ñu demee ba taxawu néew bi nañu woote ci mbooloo mi mhm. ana ko xam lu baax loo koy seedeel nga ñëw wax ko mu ne nag dina ñu dugg bu ñu wootee te kenn fàqul ci mbooloo mi pour seedeel jëmm ji lu baax mhm. xëy na bu ñu ko seedeelul ça veut dire xamaluñ ko lu baax ça veut pas dire ko xamal mais kersa dina dugg nit ñi bu ñu tëralee nit ne ana ku ko xamal lu baax kenn fàqeewul ci mbooloo mi pour seedeel ko donc loolu aussi jar na ñuy bàyyi xel gis nga fii tout est vanité. ci àdduna bi. dañuy faral di fàttali Chérif ñu waxaat ko parce que ñu ngi en plein Covid 19. quelques mois auparavant président de la République sax talatul woon. wuure wi mu nekkee tey. Mm. mois président talatul woon wuréewu diw laa war a àndal maa ngi lijjanti alliance ak yooyu lu mu rawee moom ci boppam loolu jógee gu doon xalaat da doon toog biir këram di lidoo ak njabootam takk masque loolu nattu munu ko wees mm-hmm. dundatuñu woon mais génnaguñu ci covid bi sax mu mel nii fàtte nañu. suñu bopp fàtte nañu yàlla fàtte nañu leen. yàlla rek te Covid bi jugee ko fi léegi bala ñoo jeexal aussi soxna su mag moom it muy Seyda Mariama Niass démb ñu jébal ko borom ca Medina Baye ca Kaolack gisoon nañ taxawaayam parce que ñu ngi wax waxu éducation ci kanam gis na ni moom elle a vraiment contribué à la formation de beaucoup de jeunes sénégalais yoo xamante ni jànge nañ ci institut yi mu fi am ci réew mi. loolu xam nga woy rafet mënu ko wees ñu ne jigéen nga yaay dox ci. Euh, sol nit ñi alxuraan. ba taxawal ay daara yoo xam ne nii amul dara loo xam ne nii nit mën nañu ko wax ni ci daara ji kat wàcc na yoon ci nii tey doxalinu jamono ak ni mu demee nii tey amul dara lu ñuy wax ci daara jooju ci ni xëy na jengloo na nit ñi. wala sol nañ leen xeeti xam-xam yoo xam ne tey moo law ci àdduna bi ñuy tuddee intégré sol leen xam-xamu diine boo xam ne xëy na àndul ak doxinu jamono lu rafet rek moo fa jib man damay am histoire boo xam ne bu gàtt la suñu benn neveu vraiment France la nekk yaayam France la nekk ak yooyu. mu tolloon ci adolescence ni di génn xawoon na commencé di dëgër. yóbbuñ ko sant de redressement parce que xam nga débat boobu jàll na fi bu yàggul. Mhm. mais dañ ko indi dañ ko indi internat ci soxna si lañ ko yóbbu. vraiment mu def ci moom loo xamante ni def naa ni yaay ji famille bi kenn rëccu ko delluwaat na France wax dëgg fa yàlla ñaari at la fi def. Mhm. mais muy jaar jaar boo xamante ni nii tey defe naa ni bët. ilaa yawmi diin mhm. njaboot gi duñu ko rëccu moom ci boppam du ko rëccu donc soxna si moom liggéey na fi loo xam ne ni mhm. am nañ ci moom yaakaar ndax li mu fi liggéey loolu rek a koy fekk ci fa nga xam ni foofu la tëdd ñuy ñaan it eh, yàlla may ko leerooy leeraayu bàmmeel waaye wax nga ko ci di wax ko di former ay ndaw ñoo xamante ni si mais defe naa ne ndaw ñooñu mu doon tàggat yemul woon rek ci ñi nga xam ne dañoo soxeekoo Sénégal defe naa ne tey fépp foo dem ci àdduna di nga fa fekk ndaw loo xamante ni si eh, am na loo xam ne yaa daa def na ko ci moom te dafay eh, tamit liggéey boobu mu doon def dafa naan dafay mandargaal yaatuwaayam ndax yaasee daa ñun dem nañu Mermoz reportage fekk ko ci biir bërëb ba mu nekk xale yi wër ko ku nangoo yaataloo xale ku nangoo bokk ak xale rek mooy sa xol yaatu na. waaw te donn dafa baax. donn surtout donn boo xam ne nii euh, woy wu rafet la. parce que loolu daf ko donn ci ñi nga xamante ne nii dañoo jéggaani Sénégal am taalibe fu nekk. donn ci way juróom. ba Nigéria moo ci gën a fës mais Gambie gii ay taalibe Ñaseen euh, Imam Assane Cissé bi nga xam ne nii mu ngi dund. mais daan na def conférence boo xamante ni nii Gambie Banjul chaque année mais c'était l'événement religieux majeur boo xam ni daf ko doon def Gambie mu doon ndamu Sénégal nag. Uh-huh. parce que vraiment bu ko daan def. da yaakaar ni événement boobu mooy événement bi gën a mag vraiment ci Gambie te mu doon kilifa diine fii am ay taalibe mais ba Amérique événement boobu bu ñu ko daan def taalibe yi fu ne la ñuy jóge day doon mel ni comme gàmmu dañuy jóge Nigéria te Amérique jóge Afrique du Sud jóge fu nekk pour teewee ko sénégalais moo ko fa doon def defewu ko réew di ko defee feneen ñu ko ciy màggal gis nga loolu. xam-xam rek a loolu rek a mu mel ni jàngalekat itam war nañ jàng ci moom pédagogie ndax buñ koy wane ci télé bi dafa ànd ak pédagogie surtout buy jàngal xale yi gis xale bu mokkal mu neexal la taf la ci boppam loolu jàngalekat yi war nañ ko jël ci moom. waaw jàngal bi njëkk sax mooy fi nga ko daan gisee mooy boo demee seeti ko. mais moom amul woon yitte ci fës. amul woon yitte ci wane dara. la muy def yëpp ci kër ga la ko daan defee boo demuloon reportage. defe naa ne moom amul yitte. organiser pour ne maa xewle tey. comme ni mu amee nii tey ni mu am ni jamono ji tëddee nii tey donc loolu aussi mooy def rek te yàlla tax. ak ñoo tumuranke tey def pour yàlla tax. Mm-hmm. moo tax daal ñu bàyyi xel. jërëjëf doyen na ñu ñu waa ñu jeexalee doyen Doudou Diène. Doudou vraiment euh, Doudou Diène dafa di loo xam dafa bàkk loo xamante ni ci suñu métier. Mm-hmm. xale yi war nañ koo xam. doyen yaa ngi may wax waaye nag. kooku mooy doyen waaw non waaw kooku mooy doyen kooku mooy te dafa gëmoon lenn métier Doudou Diène bu nekkoon tey ci rédaction. day gëm ni day war a def papier. Mhm. day gëm ni mën na dem sax defi interview te loolu tey dañ ko tumuranke mhm. gis nga ko ñoom Chérif léegi ay baron lañ xam nga. du ñu génn génnati pratiquement mais du Diène journaliste la boo xam ne bu ko nekkoon tey à soixante-dix ans ba lu ko wees. bu nekkee ci rédaction danga ko gis mu dem defi interview bu président de la République wootee sax comme 31 décembre bi da nga ko gis mu dem jëmmal bés ba wax fa nag loo xam ne nii xam-xam la lépp jëm ci jàngale man day daaw rek ci waxtu wi dañoo bokkoon jotaay euh, professeur Alpha Amadou Sy moo doon def cérémonie à Saint-Louis vraiment invité woon ñu ma am nag loo xam ne ndam la personnellement pour man parce que Doudou Diène ràññee na ma ma sante ko yàlla mm. parce que genre nit yooyu mm. bu fekkee ni ràññee nañu la te ñun ñuy suñu royukaay sant yàlla la mm. voilà jërëjëf jërëjëf euh, doyen allahumma amin allahumma amin jërëjëf ci jàngat bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon euh, ñi nga xam ne dañu ñëw euh, dëddu muy lu diis loola ci ñun di ñaan yàlla rek malaaka yërmande teeru leen waaye tamit mbuur leen balaanum yërmande am nañ ci yaakaar jërëjëf doyen merci beaucoup léegi-léegi ñu dalal suñu gan